بسم الله الرحيم ملة رسول ومنهج القديم وصلى الله وسلم على محمد خير خلقه وهذا آله وصحبه خير قديمه أجمعين أبجدها وزهت يا كلامنا صحف خرست زخت ذا أشع من أحمد ما ورا جنا سنت تندوني أن ماني ما تحماني سنت لما كنت دكي دفل ci سنت li mu ko defal bariwul moo tax ma koy sant mën naa cee wax kenn rekk ku koy sant Moustapha la tudd sëtam da koy sant waaw mën naa cee wax kenn rekk ku koy sant Moustapha la tudd sëtam la bu koy sant asaalixooy di way juram mësta bët ndigal da koy jëfe ba noppi di sant bu nit ñi di wérd mbaa ñuy listixaar benn xaraf lay jën mu wecc listixaar moom sëriñ Moustapha Saliou laa bëgg wax man nii bu ma bëggee xëcc mbaa may jañ benn xaraf day doy ci xëcc mbaate jañ su ma bëggee dara junni sat taxaw lii fukk tedd ki laay jën loola taxaw bu ma bëggee xar mbir pour mu nek ñaar xëkk biiram lay jël lola nek ñaar suma bëgge fat lu donon ab bën bën baaw bamba lay fatte boba bën bën suma bëgge ubi ubbi buntu bu tëju woon mimu turam la di ubbe la tëju woon suma ma gisee lu taxaw ma bëgg mu toog damay jëlu deelam loola dal di toog naka noonu lépp mu lu mu mën a doon aw xarafam dama cay doy moo yore kun moo tax ma ni maa ki war a gën a sant ndax yu mel nii daa bariwul maa ngi sant naan jërëjëf naan jërëjëf naan jërëjëf naan jërëjëf naan jërëjëf naan jërëjëf di ko iman di ko islaam di ko ihsaan di ko idman bala aïcha mbakke jërëjëf jàmm nga ne yoonu jub wii rek a fa jëm teg nu ci yoon wi ndax foofa la ñu bëgg a dem wasalaamu ala man ittaba'a al-huda